nu déggee kerteen bi di wàññi <laughs> fan yi ci seen koor gu mitti gi du leen neex Georges Déthié Diop ñu koy gërëm ci RFM matin ak toute l' équipe naka noonu yéen ñi ànd saa su ne ak ñun rajo Futur Média xibaar yi bokk na ci la woon néew tiis ca Karang élèves yu fa doon xeex kenn ka eh, mitital lool morom ma moom mi def nag mitit bi ak eh, ka doon filmer jëf ji yëpp boole nañ leen daal di eh, yóbbu ci yoon jamono yi ñu ngi ci loxo yoon ba conseil discipline ab l'école ba moom bu lycée Karang ne yéenam sax mooy dàq fee gune gi ndax jëf ju ñaaw joojee parti démocratique sénégalais euh, fas yéene jël yoonaw boppam ci élection palak député yi nu dëgmal euh, sàkku na nit euh, ñu daal di valider dëggal jëmmal candidature bu Karim Wade ñibbiseem naka noonu am na ay spécialistes yu ne bu nu sañoon ñoom ñooñee di PDS ñu àndeek majorité bi di opposition bi waaye loolu lépp daan ko ànd jàngata ndoor ci kanam tuuti ak Mouhamed Jo Diop lay doon wàllu xibaar bokk na ci it lu jëm ci conférence de presse ya nguur gi daa amal euh, ab diir euh, bu ca ne gouvernement bi ci boppam te ñu dakkaloon ko diir daan ko tàmbaliwaat alxamis tey ji ci kanam tuuti lay doon ministre bi ñu dénk collectivité territoriale dina ci ond ak ay naatangoom ci misaal ki yore wàllu wérgu yaram ak wàllu pétrole ci technique bi Abdou Thiam Assane Gueye ndaje yooyu ñu duppee gouvernement face à la presse dina tàmbaliwaat euh, tey jii euh, lay doon gannaaw ab diir bu ñu ko dakkalande ministre euh, bi ñu dénk collectivité territoriale di porte parole bu gouvernement bi naata ngoom yore wàllu ko gu yaram ak ci yor wàllug pétrole ak énergie daañu daje ak taskatu xibaar yi alxamis tey jii dina bokk ci waxtaan wi daanaka ci gàttal lépp loo xamante ni mooy tolluwaay jamono téeméeri fan yi TER bi naka noonu it lu jëm ci wàllu wér yaram ak xeex ba ca Ukraine nag tolluwaayu àddina Sénégal. Euh, rawatina euh, wàllug euh, wér-gu-yaram googe ak it jax gi ci jamono yi waral njiitu réew mi démb ci conseil des ministre daal di ca àddu bu sañoon mu ne ñu daal di ñoom gouvernement bi gën a farataal may nopp ak xel gi jëmee ci ñi nga xamante ni ñooy doxal dëgg wàllug wér-gu-yaram di acteur de la santé it daal di waxtaanee it li nga xamante ni mooy kaaraange ci tali bi loolu bokk na kon ci li mu àddu moom président Sall du Oumar baax Macky Sall ci conseil des ministre ne dafa bëgg a bu baax qualité wér-gu-yaram bi ñu joxe fii ci Sénégal structure sanitaire yi waaye itam condition de travail yu agent de la santé catégorie yëpp loolu nag mu ne gouvernement am dañoo war a impliquer médecins yi pharmaciens yi sage-femme ak ñeneen ak ñeneen ci administration ak régulation activité yi laale ak wér-gi-yaram moom nag mu bëgg sax waxtaan yi di wéy maanaam dialogue sociale ak syndicat de santé waaye itam organisation professionnelle ci conseil des ministres googee wax na itam ci accident yi ñu nemmeeku fan yi ndaxte bëgg na ñu appliquer ci nu mu gën a gaawee code de la route bu bees bi buñ sukkandikoo ci moom bëgg na itam ñu xoolaat bu baax signalisation ci tronçon routier yi aménagement ak lépp luy ralentisseur aire de stationnement et de repos ci point officiel yi nga xam ni loolu moo leen tax a jóg réew mi bëgg ñu xoolaat bu baax fii ak njeexitalu juin 2022 cadre gouvernance circulation de véhicules ñu xoolaat bu baax oto yi daw ci tali bi ci mel ni bus de transport ak gros porteurs yi gros porteurs yi nag ñu siy déggee camions yi ak yu xeetoog yooyu. jërëjëf Mamadou Oumar wàllu politique ak Abdourahmane Diouf Thierno Bocoum Thierno Alassane Sall Cheikh Oumar Sy yi fas yéene àndandoor ci élection palak député yi nu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru solet lay doon dinañ ci taxawal seen ak mbootaay di coalition ubbiku ci yeneen partie wala mouvement yi ci Sénégal kenn ci kilifa yi googee coalition na bokkum ak Serigne wu Seck. waaw effectivement comme ni ngeen ko xamee euh, ñu ngi jëm ci élection législative yi mu doon élection yoo xamante ne ni am na solo loolu pour askan bi ndax ñu war a teewal askan bi ci assemblée nationale la ñu war a tànn loolu nag mu doon loo xam ne lu am solo la ci loolu la am ñu jóg waxtaan seen biir pour nekk initiateur benn coalition boo xam ne dañ koy teg euh, ñooñu nag man mii di wax ak yow la muy Thierno Bocoum jiite mouvement Agir Ibrahima Amidou Dem jiite éthique muy juge Dem El Hadj Diouf jiite awale Thierno Alassane Sall jiite république des valeurs réewum ngor Cheikh Oumar Sy bu jiite PREI di ancien parlementaire donc ñun ñoo am initiative bi pour teg coalition boobu jëm ci élection législative yi ñu jëm mu doon coalition boo xam ne nag dafa ibbee force vive de la nation yi parce que lépp luy compétence lépp loo xamante ne bëgg-bëgg la pour que assemblée nationale mu changer xar kanam woo nañ leen pour ñu ànd pour mun a dem ci élection législative yi ñu jëm. liggéeyu pare parrainage moom daanaka sooy xool ñu ci bëri ci ñun lépp lu jëmoon pour bokk ci élection yi mu jëm condition yu ñu luwaa tegal muy parrainage muy caution et cetera képp koo xamante ne ne cité naa la fii rek am na ci taxawaay bu mat sëkk bu mu fi am depuis le début parce que ñun ñëpp dañoo nekkoon candidat pour élection législative donc li am solo tey mooy ñu fas yéene liggéey ba nga xam ne population yi su ñu falee dinañ xam ne ne dinañ am taxawaay bu mat sëkk sëkk sëkk ci assemblée nationale sénégalais yi ñu défendre seeni intérêt yi ñu taxawu leen ci anam bu ne ci fànn leeral li Thierno Bocoum kenn ci kilifa yi euh, dogal ab euh, bennoo ak lëngoo ngir élection législative yi nu dëgmal bu ko weesoo moom Thierno Bocoum Abdourahmane Diouf nga ca ceex euh, Thierno Alassane Sall Cheikh Oumar Sy ak juge Deme Euh, ñu des ak politique gi ak parti démocratique sénégale bi doon amal ndaje seen biir démb bokk na ci li nga xamante ni euh, mooy càkkutee fii mooy ñu daal di euh, nangul Karim Wade ak bokkam ci élection yu nu dëgmal ñibbisi gi nag noonu PDS daal di jël dogalit jaar ci yoonaw boppam ci wàllu woowee njàngat jib na ci yenn ci spécialiste gis ne loole new dogal tukkee ci PDS ngir demal boppam ci élection législative bi naam du luy garanti ndam bu nu sañoon it yenn ci boroomi xam-xam ñu dem fekk ñoom PDS majorité bu opposition bi Mouhamed Jo Diop taxawaay la boo xam ne finalement kenn xamul li muy niru parti démocratique sénégalais gannaaw bi nga xamee ne wax na yéeneem ngir dem ci coalition ci élection législative yi ñu jëm mujj naa jël dogal dem moom kese ci élection yooyee muy nag ab stratégie boo xam ne wóorul mu am ndam bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi di Mamadou Sy Albert. ci boobu dem élection législative moom kenn ci suma xalaat jaaduwul parce que élection assemblée nationale dafa met benn parti ci opposition bi mënul gagné benn donc PDS war na xam lool PDS li mu war a def jamono ji mooy fexe ba am leader boo xam ne ñëpp dañ koy déglu. lool loolu buñ ko defee mënuñu gagné élection liste. législative il faut mu def campagne ci quatorze régions Sénégal ci bitim réew donc loolu dafa laaj ñu am moyen mais dafa laaj aussi ñu am direction donc loolu mooy problème njiit aussi PDS il faut mu am njiit ki nga xam ne mën na taxaw def campagne lu gën ci PDS tey ji su mu toll mooy mu ànd ak opposition PDS ñaar ñoo ko manqué mooy terrain ak communication buñ sukkandikoo ci Pape Amadou Fall directeur de publication bu la Gazette. fii ñu ne ñoom kan la ñu gën a wala moon wóolu d'abord ci wàllu wi nga xam ne moom mooy doxaliin ak wàllu yi nga xam ne moom mooy wàllu euh, jiitu euh, pour mu yore li nga xam ne moom mooy xalaat wi waaye moom kenn bu dem faw mu am ñoo nga xam ne dañuy topp ci ginnaawam. ñaar ñi ñu waxtaanal seen xam-xam màcc ci wàllu politique moom jàpp nañ ne PDS yoon bi mu jël du yoon bu baax ba te nag li koy firndeel mooy élection législative yi ñu dëgmal njort nañ ne du résultat ya gën lañ fa nar a jëlee. Mouhamed Jo Diop RFM juróom waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar xibaar yu wóor. marché bi ak certe njëg yi ba tey kiliyaan yi di ko jooytu rawatina ba lenn ci ay jaaykat dakkale njaayum diw mi ndax gis ne ñoom it dafa xaw a seer lool ci ñoom Fatoumata ki jeexaa. déedéet dara wàññeekul lépp cher. mi ngi sol jàllaabe teg fulaar ci boppam mama Camara mu ngi dugg ci bile magasin ngir jënd waaye yi gën a am solo ci wàllum lekk ba tey jii dafa cher. non non jusqu'à présent fii dara wàññeeku fi fii prix yi ñu ngi yokk jusqu'à présent moo fi nekk fi dara wàññeeku. fekkee da ngay jaay nit ñi jënd ñu nooy amee dépense boo lekkee amuñoo xam ne dañuy xëy ñu am sax dara lu ñu lekk. loolu laal mu dëgër billaahi nit di nga gis des nit ñëw ci marché bi sax yor som bu ndaw taxawaalu taxawaalu ba sonn sa jëlaat saagam ñu jëlaat ci buntu bitig bi ñoo ngi ci taf njëkk yu bees yi. kii moom dafay jaay détail ak demi gros Ibrahima Diallo lay wuyoo moom wàññiwul muy wax lu ko waral. suukar si moom tam wàññeekuwul. non suukar si wàññeekuwul. fan nga ñu ngi jënd ni benn saako instant vingt huit mille sept cent cinquante. ngeen jaay kilo ñaata. ba léegi boo xoolee heure bu ñu nee wàññi nañ fa la commencé yàqu yokku. Modou moom itam commerçant la. dafa mujjee sax jaayatul yenn ci produit yi ndax ni mu chéré. man tànk jaaykat dama préféré prix yu bëri dama ko ñi ñi dañ ko wàññi yëpp dama préféré bañ a teg koo jaay parce que dama am samay client day ñëw sax fois lii dañ ko wàññi dañ ko wàññi te yow ni ñu ko doon jëndee dafa yokk sa en plus. directeur bu commerce intérieur li mu xamle mooy ne wàññi nañ njëg yi yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo ci marché bi waaye loolu wuteeg li consommateur yi di jànkonteel di sàkku sax ci moom ñu taxaw bu baax ci lu jëm ci wàllum régulation marché bi Fatoumata jërëjëf leneen ci xibaar ak li nga xamante ni mu ngi jaar démb ak euh, léegi ci internet gi ñaari gune yu doon xeex ca lycée bu Karang kenn ka mitital lool moroom ma métit bu jéggi dayoo tooyloo xool yu bari loolee nag am na njeexite yu mu jur ndax euh, kilifa yi am na cay dogal yu ñu jël bokk na ca te nit gune ba ci sax euh, conseil discipline bu ne bu sañoon ñu dàqee kenn ci yooye élève ca lycée ba mooy ki waroon ca kaw moroom ma di ko mitital lool Aminata Goudiaby vidéo bi nga xam ne nag tasaaroo na ci àllarba ji ci réseaux sociaux yi jaaxal nañu bëri tiital leen itam benn xale bu góor la bu yéeg ci kaw moroomam di ko dóor dóor yu metti daanaka sax xaw na ko étouffé mbir mi nag mi ngi xewee ci Karang Poste ab commune la bu féetee ci biir département bu Foundiougne xeex bi nag mi ngi am ñaar fukki fan ñaar ci weeru avril bi ñu weesu ñaari élève la yu bokk classe cinquième ñoom ñoo doon xuloo ci lycée mixte bu Karang bañ jógee la ñu joxante rendez ci beneen école élémentaire boo xam ni diggam ak seen lycée tollu na ci un kilomètre ba eggee ca école boobu nag nga xam ni moom moo dóor moroomam dóor yu métti yi dafa tëb rek dal ci kawam laataa mu koo tàmbali dóor dóor yu métti yooyu lim teg nag mooy woow seen beneen camarade de classe ngir mu filmer mbir mi biñ ci jugee nag ñoom li ñu def mooy dem partager vidéo bi ci benn groupe whatsapp waaye nag ci àllarba ji la vidéo boobu rëcc dugg ci biir réseaux sociaux yi ñoom ñett ñi nga xam ne nag moom la mbir mi yitteel conseil de discipline bu lycée bu Karang déglu na mi nga xam ne nag moom moo def jëf yu ñaaw ji li mu wax ne moom moo waral mu def ko nee na xaritam bi daf ko doon xas naan ko góor jigéen nga discipline bi nag jëloon na ay matuwaay waaye ki nga xam ni moom mooy waajur bu góor bu xale bi nga xam ni moom la ñu dóor ba gaañ ko dafa dem porter plainte ca gendarmerie élève bi nga xam ni moom moo def jëf ju ñaaw ji ak ki nga xam ni moom moo doon filmer mbir mu ni mel nekkoon nañu ci garde à vue laataa ñu leen di déférer ci altine bi ñu weesu ñoom ñaar ñëpp nag fi mu ne ñi ci maison d'arrêt et de correction bu Fatick di xaar seenu procès juróom-benn di ñëw jërëjëf Aminata yooyu autorité di kilifa yi yore wàllu njàng mi inspection d'académie bu Fatick euh, ñoom euh, war a dem tey akub délégation ca Karang ngir gën a leerlu ci mbir mi euh, donte nag loolee nga xamante ni mooy doxalinu élèves yi ñoom danoo gis ne wàllu xeetu doxalin la yu amul place ci biir lekkool yi dañu ci ànd kon ak inspecteur académie bu Fatick Cheikh Yaba Diop ak soxna Aminata Goudia bi bi jëf yu ñaaw jooju amee ñu gis ko muy xale yi doom xeex kenn ki di mettital lool lool lool moromam dañu bokk si classe de cinquième sa Karang dañ koy métti lu di naqarlu bu baax a baax a baax di jël aussi dogal yi nga xamante ni si moo si war xale yi nga xamante ni si ñoo def jëf ñaaw loolu ñoom ñu ngi si loxoy yoon xale bi nga xamante ni si moom euh, moom la def lu ñaaw loolu te méttital ko kooku ñun dañuy def benn délégation bu directeur CAS PEPOC ak euh, coordonnateur IEMA ñu dem nemmeeku xale bi nemmeeku ay mboqam xool yan taxawaay lañu war a am si moom naan nañ koy jàppale fexe ba mu mën a ñëwaat si ay moromam jàng si anam yu mucc ay conseil de discipline u établissement wu lycée Karang ñoom réunir nañu te am nañ ay daan yu ñu jël daan yooyu ñu ñu jël nañ ma ko jébal pour que man ma mën ko doxal euh, nu mu waree di wax ne nag mbir mi ñaaw na lool fu ñaaw te teef yem ñun lépp luñ si war a jël comme matuwaay comme dogal dinañ ko jël incha allah sport gi tey ñuy dalal Georges Déthié Diop Georges bisimilah. <laughs> maa ngi lay fay El Hadj Assane doore kook euh, football ak euh, coupe du monde bi fas yéene am. Euh, ca euh, Brésil euh, coupe du monde bi jëm ci suur mi xam ne nañ ko wax ci wolof. waaw ñi lu rek voilà ñoom daañu jot drapeau national bi tey bu 11 jotee ca ministère des sports Matar Ba moo leen koy jébal coupe du monde boobee nag fas yéene amee ca Brésil niñ ko waxee sànq ndorteelu weeru mai jëm ba fukki fan ak juróom ci weeru mai atub 2022 gi addu ci kanu jigéen ñi fas yéene amee ca Maroc atub. ba 2022 gi Sénégal nag euh, door ab préparation suñu gaynde ñu jigéen ñu ngi ci regroupement ci Toubab Dialaw ba euh, ndorteelu weeru mai ab groupe joueur yi nga xamante ne fii la yëngu ak kenn côté moo ca yëngu ca biti réew la ñu namm ca loole nag moo di détecter talent yi nga xamante ne ñoo fas yéene gën a dooleel équipe A bi euh, jaarale ko ci expatrié yi entraîneur ba di Mame Moussa Cissé ak Youssouf Bodia. stage bi nag. dox si diggante vingt cinq avril ba premier mai ñu convoqué woon euh, fanweeri joueuse yoo xam ni ñu si ëpp ñu ngi fii ci championnat Sénégal kenn rek moo ci jógee bitim réew mu ngi jógee États-Unis na ba Ndaw ñeneen ñëpp euh, mooy groupe bi nga xam ni mooy groupe locale bi nga xam ni ñoo fi nekkoon ñu boole si nag euh, ay joueuses yoo xam ne ñu ngi woon si sélection nationale u bi ak sélection U17 bi nga xam ni daanaka ñu ngi doon compétir euh, ak sélection yi ba mois de mars bi passé ñu doon xool ñi si gën a xarañ ñan nañ mën a ñëwee accompagner équipe bi. ñuy xaar aussi suñu yi nga xam ni euh, bokkoon nañ si éliminatoire yi te nekk bitim réew ñeneen ñoo xam ni ñu ngi leen di wax. képp ki nga xam ni daal doomu Sénégal nga tey euh, ñu xalaat ni war nga mën a indil équipe bi dara dinañ la indi pour que nga jàppale équipe bi pour que ñu mën a def participation bu baax ci Coupe d'Afrique bi. ñu ngi ci boole nag euh, di prévoir ay matchs amicaux ñett balaa ñuy dem Coupe d'Afrique bi. waaye fi mu ne nii euh, mënaguñu fixé wu ci adversaire bi tànk amaguñu tirage bi xam naa ni d'ici vendredi bu ñu amee tirage bi ak poule bi nu bokk dinañ mën a xam yan adversaire nañu mën a am fi lay boobu. tirage au bi tirage au sort poule ci CAN féminine boobee tey lay doon bu 20h30 jotee ca Rabat coupe du coupe d'Afrique boobee fas yéene am euh, ñaari fan jëm ba ñaar fukki fan ak ñett euh, ci weeruk euh, juillet football benn ramasseur de ballon moom lañu ñu bun xataal ab joueur nag moo ko def ca Louga. Euh, jamono ñi nga xamante ne waa Njàmbur ñuy doon laale ak waa Dakar Sacré-Cœur jëm ci 19e journée bu Ligue loole loolee nag coordination nationale yu école football yi ñaawlu ko bu baax euh, njiit la euh, bëgg ñu teg ay daan ñi def lu mel noone Alpha Dabo Sodo Thiam moo jox kook moom. ñu jot ay image yu ñu wan ne dafa am sunu benn gone gu ñu fa yebaloon comme ramasseur ñu agressé ko benn mag. benn adulte benn joueur agressé ko te à la limite mun nañ ne dara fekk ko ca ndax carton zone la ko arbitre ba jox dirigeant de footballu Sénégal yi war nañu toogaat xool li nga xam te ni mooy daan bi nga xam ne moo yelloo ak loolu ñu def ko daan yoo xam ne dina mën a protéger suñu xale yi yoo nga xamante ni ñun aussi dinañ gën a sawar pour yebal xale yi ñëw def ramasseur ndax tey ramasseur ku ne xam na ne dafa nekk lu am am solo léegi ci footballu tey ji ndax ramasseur bu match gaawee moom la bu match yéexee moom la li ci des nag mooy aussi di dénoncer li nga xam ne mooy li xew ci sunu terrain yi di xew ci sunu club yi ànduma ci li nga xamante ni tey jii ñu ngi koy def di ko exploiter xale yi di jël xale yi di leen jàngal tricher di leen jàngal tappale ba nga xamante ni tey xale yooyu tey xale yooyu tey ñoo war a nekk relève bu footballu Sénégal bi rafetlu ma loolu te loolu nag jàpp naa ne il est temps que ñun éducateurs ñun ñi nga xamante ñun ñoo téye xale yi ñu leen di tàggat ci ay valeur jàpp naa ne ñun ñëpp moo war a góorgóorlu ba nga xamante ni ku ñu bëgg a def loolu loolu ñu bañ mais nag loolu nag li koy dooleel mooy ñun ak vent ñi nga xam ne ñoo nga football bi ñu toog waxtaanee waat li nga xam ne mooy ramasseur football euh, ba léegi waaye ca tugal euh, démb demi-finale aller bu Champions League bo ca Europe Liverpool ak villa euh, Villarreal woon Liverpool moo daan villa Villarreal ñaari bal ci dara ñaareelu bit bu Liverpool nag Sadio Mané moo ko dugal ki nga xamante ni moo di Boulaye Dia te bokkee ca Villarreal mu ngi dugg ci 72e minute bi match retour bi talaata gi ñu la lay doon basket ci góor ñi juróom-ñeenteeli journée bi ci championnat bi US Parcelles Assainies euh, Sibac moo ko dóor 69 à 41 ci jigéen ñi huitième journée bi la woon ISEC ak euh, Mbour basket club euh, ISEC nag moo dóor Mbour basket club 86 à 40 jeexale lamb ñu tere nag bépp yëngu-yëngu ci lamb bu ñeenti fan jotee ci weeruk mai jëm ba juróom-ñetti fan loole nag li ko waral moo di tournoi de lutte euh, maanaam drapeau du chef de l'état CNG ne li tax mu jël dogal googe moo di euh, drapeau chef de l'état bi nit ñi bëri fa te mu jaar yoon maanaam daal mu doon ab réussite mu fas yéene amee nag El Hadj Assane mhm. ca Diourbel. waa Ndiarème ay bi yoon. ja moo goog xam nga ci mbëri Diourbel yi kenn. ah yaakaar naa nag uh, damay uh, dem jëli mbëru njagañaaw yi. am na ci <laughs> mbër mbër mu naan Mara Dieng <laughs> jërëjëf. rajo askan wi. chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. secteur euh, privé bi ca Ndar ndax mën na tax euh, industrie culturelle yi gën a sukkandiku ci boobee euh, diwaan ci thème boobule la ay acteur culturels doon waxtaan jaarale ko ci concept bi ñu dippee waxtaan éco mbébét bi moo di fexe ba ñaax ndaw yi ñu gën a dugal seen loxo ci secteur culturel bi bu ko defee ñu gën a mën a jaay taaru Ndar waaye nag lu ci ëpp ci acteurs culturels yooyu lee lu ñu seetlu moo di problème bi ñu war a njëkk saafara mooy fexe ba euh, ndar am infrastructure culturelle yu doy dañ ci déglu ki taxawal boobu boobulee ndaje Alioune Ndiaye ñu gën ko xam ci turu euh, Zila. léegi dañ doon waxtaan ci naka la mën a fexe ba dundalaat affaire yi. ñu indi koo xam ne ne waaw culture Saint-Louis Saint-Louis Saint-Louis général de manière générale nag lépp ci kaw loolu nit wax nañ fa nii bu fekkoon ne am nañ ay initiative privée est euh, initiative yoo xam ne nit ñoo koy jël dina baax bu fekkoon ne am na initiative yoo xam ne tamit état moo ko mettre à kii à la disposition des acteurs et des artistes aussi dina gën a baax te ci kaw initiative yi état di jël ak état wa war war a mën a jàppale artistes yi moom mooy infrastructure te Saint-Louis amu fi moom mooy benn lieu boo xamante ne déjà acteurs culturels yëpp dañ mën a regroupé wu di def production di def euh, di def seen promotion di def seen diffusion di def seen programmation genre milieu boo xam ne c'est carrément culturel quoi pour artistes yi mën di fa mën di fa dund culturellement. jaajëfal euh, Ousseynou Diop euh, mi taataan euh, yile kaddu alxames yi nag SODAV dina tàmbalee fay yenn ci ay artistes jëm ci wàllu droit yi ñu waroon a fay. ndorteelu euh, atum 2019 ak 2020 koppar bi mu ngi tollu ci euh, lu ëpp juróom-ñaari téeméeri million ci suñu koppar ñu war ko séddale diggante ay woykat ay comédien ak ay euh, bindkat daanaka musiciens yi ñoom ñoo ci ëppale wala am lu ëpp 188 millions ci boobe koppar mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar ñal aada ci RFM RFM nit yi transfert Ria. seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen di may li ci yéenekaay yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf njëgu Bambey wala fi nee na ñu tuuta teew ubbil soleil national ci ndajem conseil des bi ñu doon def démb fa président de la république Macky Sall xamle juróomi téeméeri junni ak ñeent fukk ñaar yu teg juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk juróom-benn ci ay boroomi kër yu nekk ci réew mi te seen loxo jotul seen ginnaaw di 542 956 ménages yu ñu war a séddale ñeent fukki milliards ak ñett ngir jàppale leen ko ci dundu njiitu réew mi Macky Sall moo koy teewe Les Échos xëy moom it feelu soleil national ci xibaar bi ni mu tuddee yëf yi moom Les Échos moo di opération de solidarité nationale gu rëy 43 yu état bu Sénégal war séddale boroomi kër yu soxla ndimbal ci réew mi ci jamono ju naqari ji réew mi quotidien nañu naqari waaye jamono ji ku koy wax léegi tey sax nga far yow naqari ci sa jëmi bopp li ci xaw dal am xel akës néew journal bi nee nañu moo di pexe a na taxe yu toll ci 67 milliards ak lépp rek ngir bañ mbir tar ci askan wi journal la mandat mel ni ku naan ñu njëgu dund googee yokk yu yi jëm kaw lu ci état bi mën rek na ko def ndax muy moom di waxi nguur jigéen yi ñooy ñaari adversaire yi nga xam ne ñi fare ci nguur gi bu ñu ko réglewul ba mu féete boor nar na leen yàqal lu bari ci élection législative yi élection législative yooyu l'observateur xëy ne di ñu wax ci xëtam mu njëkk convoqué na émissaire politique mi ca palais ba Isaaxa Diop maire bu Pikine Est bokkit ci coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi dalal xelu Macky Sall ci waxtaan yu mu séq ak wàllu ubbil yéenekaay bi maire Isaaxa Diop nee na ci élection législative yi ñu jëm waa Benno Bokk Yaakaar danañu gagné département yi ci Ndakaaru yépp wax na ca waxtaan wa it fa mu moom Isaaxa Diop ba gagnéwaat ab commune am ci élection locale yi ñu génn wax ci politique bi mu teg ngir régler problème emploi des jeunes ci ab commune am wax ne ci na ci journal fa nañu ba mu ñëw ak Macky Dadi ñoom ñëpp ngi wax ci xët mu njëkku yéenekaay bi li PDS nam le journal nañu ñoom waa PDS li ñu bëgg ba mu jaral lu nekk moo di Karim Wade dellusi ci réew mi Karim Wade doon nit candidat ci présidentielle yu yi député Cheikh Abdou Bara mi bëggoon a dem ànd ji ak waa yeewi askan wi suur soi nee nañu dafay xaar li ko waral moo di waa parti pur ñoo laxas ci yëf jaan ndax nee nañu Cheikh Abdou Bara Dolly dafa mas a wax wax ju ñaaw te ñàkki teggin kii di Serigne Moussa Fass yi xàcc woo gis wërsëguwaay la bu dee waa yeewi askan wi jëluñu ko yéenekaay bi nee nañu du ko tax a lamb ndax waa wàllu Sénégal ñoo ngi koy démarché la tribune nañu waa yeewi askan a a tas niroog coow li woon ci diggante l'homme des affaires bii di Abdoulaye Sylla borom Ecotra ak soxna si di Momi Kébé direct ci news nee nañu coow la féete na boor fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai 2021 ci la ñu ko àtte woon joxoon dëgg Momi Kébé Abdoulaye Sylla ne du ko nangu dugalaatoon bennub demande doon sàkko ci soxna si mu fay ko 250 millions yéenekaay bi nee nañu yoon àtte na ko démb ba joxaat dëgg Momi Kébé doomi Ndiouga Kébé ji di Momi Kébé direct ci news nee nañu ñaawul benn yoon ci xare bi bloqué woon nañu ay compte mu compliqué woon ci moom lool taxul mu ñànki benn yoon yuuxuwulit benn yoon lépp la mu ñoon ba yoon jox ko dëgg lu dul dëgg du yàgg ubbi libération Anta Ndiaye di xale bu jigéenub juróom-ñett seet bi ñu fekkoon ñu faat ko cib tabax bu yeggul ca bar ñi bi nee nañu ki ñu njoxte ne moo def jëf ju ñaaw jooje jàpp nañu ko Mamadou Ba la tudd ñu gën koo xam ci moom fukkeet ak juróom-ñaar la am yéenekaay bi nañu seen nas ndaw suñu naan tée mbuub fekke woon ba waa ji di rey xale bi moo wax enquêteurs yi keroog ca tabax ba nee na dafa àndoon ak xale bii di Anta Ndiaye doon wuti këriñ ca la demee fekk Mamadou Ba ci tabax a wax ci mbiri cousine bu mu doon génnal ko loo may xoole te mbuub ne booba anta xamul sax lan la ñuy wax fa may waxee ci la ko Mamadou Ba songee xoj ko ba faat ko ndaw si ne ci laa daw bàyyi leen fa transfert d'argent bi wóor ria seen savon yii di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mouhamed mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar yeeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar xeexoo yi nga xamante ni mi ko nañ ko ci vidéo fan yi diggante ñaar ci élève ca Karang kenn ko war morom ma di ko mitital anam yu yéeme yu tooy loo xol yu bari waral loole euh, nepp taxawaay kilifa yi fas yéene jël euh, ay matuwaay bokk na ca inspection d'académie bu euh, Fatick daañ fa dem tey akub délégation foofu ci Karang te it ni ñu ko waxee gune ñu ngi ñaar ñi nga xamante ni kenn ki doon mitital ak ki ngi ci kaso bi sénégalais bi fas yéene jël yoonu boppam ci élection palak député yu nu dëgmal war a ñëw fanweer ak benn ci fan ci weeru sulet 2022 euh, waa PDS seen doxalin boobe am na ci ñenn ci ay boromi xam yi politique yu ko jàngat ci gëstu bu Mouhamed Diop euh, yaakaaru ñu am ca ndam ci yoonu bopp bi ñoom danoo gis ni daal li doon xel mooy ñu dem fekki mbootaayu opposition leneen ci xibaar bokk na ci gournement bi da faral di euh, janoo ak taskatu xibaar yi gouvernement face à la presse boobu ñu daa amal dakkaloon ko diir daanu ko tàmbaliwaat alxamis tey ji ministre Euh, bi nu dénk collectivité territoriale di porte-parole gouvernement bi Oumar Gueye dina ci ànd ak ay nattangoom ñu euh, yore wàllu santé ak pétrole ak énergie ci technique bi Abdou Thiam El Hadj Assane ci micro bi digital gi soxna Yacine ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal